asalaamualeykum wa rahmatullah sama saa noo ngi leen di siyaar bu baax Diop waa daara Faydul Ghaniyil Mughni dañoo am ab jotaay bu ñu naan bu ñuy bu ñuy faral di def bu ñu koy tuddee minbar ñu daje fa ngir di sottante xalaat ni ngir yokkante pas-pas ñu amoon ab ak wuute nag ci déggin gi ñu déggee diggante ñaari baat yi di jébbalu ak jaayante ba xam ñoom ñaar benn la wala du benn bu dee benn la nu ñu nekk benn bu dul benn tam fa nañu wutee ba loolu jàllee tam ñëw ci bàyyiliku bàyyiliku dëgg-dëgg mooy lan ak lan moo lëkkale bàyyiliku ak baat yooyu bu loolu jàllee itam li ci toppaat mooy dañoo wax ne ku jël wird bi wala ñoo dégg nga nga wax ne ku jël wird bi kala ko jox mooy sa sëriñ ñuy wax ni kon sëriñ boobu ndax sëriñu tarbiya lay taxawe wala ban xeetu sëriñ lay taxawe ak ndax sëriñ boobu kon kam jox wird bi rek doy na mu bàyyilu ko ci moom wala boog faaw mu jébbalu ci moom ba noppi doo mën a bàyyilu ko ci moom wala faaw mu jaayante moom ba noppi doo ko mën a bàyyilu ko ci moom kon diggante boobu daal lañu amoon jafe-jafe ndax bu ci mënee am ak ak ak jubbanti ak leer ak leeral rek dana gën a jàppandi ci mbooloo mi maa ngi jégalu bu baax a baax nag di ñaan suñu boobu yàlla yàggal taxawaay wi kat na la wéral la ñaar fukki daara ak juróom-ñett yëpp sotti ci rot maa ngi gas ci biir. ak li ñu sartee mooy ndax mag ñi buñ daan jaayante dañ daan tudd baat ay baat wax waxante ak ak ak sëriñ ba bañ daan jaayanteel
asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu fataahu habu yaar saqu yaa may kii niftahu habdi yaa wasuqni ku ñu ana day fi asina ajalan bil bishi muhammad din xata ak man din lay akana yusuf jooni tuwaa wax min yokkini atawraahu ak sama wal aradi wal habu yaa musharikin yaa bu shukran ajib ko seen هذا دي مهدو مرات في القرآن سبحان ربك الرحمن آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سالي نيب وافوي الخني مهني وافوي الأكاب السرحين أكفرم وايد من الدقي من برو في دو سين لاج بيام سلول جبولو أك جاينتي baal yi moom bokkuñu waaye dañoo dañoo duggalante joo maanaaya jëbbalu aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin maa fulaan boo demee ci ñun ca ca ca baxtali sëb Suleymaan kon jëbbalu mooy jëbbal naa yàlla sama bopp moom la ko Suleymaan andi woon ñoom de su fekkee na jébbal naa la sama bopp ndax ndax ndax sëriñ bi ginnaaw mooy mooy wàccite kon yàlla rek la wàccite lancement bi mooy yëntu sam lañ tuwaay noonu boo dee si yàlla sëriñ te yéen woo ci tubb ci leer yëntu sam doo ci am dara ndax leer ga ci ci ci sa sam la jóge lu boobu yu jóge lu boobu bëri bëri bu dee ci suñu réew mi xanaa jamono ji boobu courant ba ma ngay jógee Senelec kon bu bëri bëri bëri kon Sénégal la la bëgg ay jëflanteel kon kon kon jëbbalu ngoog maanaam jëbbalu nag mooy jaayante mu bàyyiwoon indi la si ne yu bàyyiwoon ak yu bàyyiwoon la yu moo koy dim mooy jaayante jël engagement ca la nga la nga waxoon nga te mooy jëbbal naa nga di ko firndeel jaayante. bi sarraay wa darraay bu neex bu naqaree lépp bu tàngee bu seddee lépp ndigal lay diglu kooku mooy jaayante mooy loolu Cheikh Fall da defoon su ko di jaayante ndax daa am sàngam ju bëgg muy jaayante suñu tubaab woon la am noonu boobu jaayante gi yéen bi baax di seetu salaam sàngam ju bëgg di jaayante ku jaayante ngir àdduna la la muy jaayante moom mooy loola loola tax loola moo moo ci firam ku jaayante ngir àllaaxira loola moo moo moo ci ëpp firam ku ku jaayante ngir yàlla nag ëpp ciitam amatul dayoo kon jaayante jublu kon mu dañoo duggalante waaw ki nga xam ne ku la jox wedd yi mooy sëb sëriñ loolu moom ci sa waaw ku la jox wedd yi mooy sëb sëriñ nga xam ne mooy sëb sëriñ la ci sa sëriñ Tuubaa waaw ko ku ku ma jox wedd bi ne ko suñ seeli wu ma ko jox suñ seeli wu ne ne ne ne ne waaxal comme yéen de seen càlla la gàtt na man sëñ bi ko kon nga ne suñ seeli wu sëñ Bamba wala suñ seeli wu Xaadimu Rasuul mun naa sëñ Bamba te keneen la Xaadimu Xaadimu Rasuul ji mooy mooy ki tax ñu jublu noonu ki ki tax ñu jublu Xaadimu Rasuul kon. kon silsila ngoog loolu suuf su su fekkee wax tax keeku silsila mooy kon jël wér du wax ci koo ci koo ku jëlee waaw koo jëlee wér du nag ndax kooka kooka cheikh moro bi la wala wala cheikhu la boo xam ne moo lay boole ci ci ci almusawu sax bi bu cheikh xadim bi waaw nit ki mën a laa jox wedd bi rek nga xam ne jokkale la kursu sëñ bi jokkale la ca fiil ga nga jëm ci xadra ba waaye na na na du sa seexu tërbiye ndax mën naa bañ a doon moom seexu tërbiye ku mel ne man nag sama silsila ci suñu jeel yi moom dañ ko waxoon ne ko di ci tërbiya di ci ba egg ci yàlla di ci yeggale di ci tërbiya di di di di di ci ceegale waaw loolu it nag kooka mooy laaj ba ba ca des bayliku mooy tarku tëj biir bayliku bayliku ji nga xam ne wamaaw salagul ixtiyaar yi seen i béykat yi si si wàllu sa taarix moom mu rëy di ixtisaar albaxatu na na seen tuxaa xaw fa ixtiyaar ñi ñi dikk na dañoo bëgg soobu saari kiin yi ñooñu lañ wax de ñooñu lañ wax am nañu yaakaar ne si wàllu seexu murid murid bi moom mbooloo mi mbooloo mi mbooloo mi seen bokk déedéet ku jóg ngir ngir bëgg am lu mu am lu muy wut ci Sëñ Tuubaa kooka la ñuy wax kooka la ñuy wax ngir nga am ngir nga am ko si si waat yaa ngi nii. au moins salabul ixtiyaar yi dindi ko ci ci ci sa tànn jël jël tànn suñ ba loolu mooy bayru ko ci bayru ko ci ci xooy sëñ bi si saa yu xadisa si raxu neewoon na bayru ko day duyul borom xel waaye taxu taxu koo daana loolu mooy tarkul bi tëdd biir waaw ay xadiman na na na ko si na ko na na na na ko si si xamul si sa xin bay dafa fi la waxoon sëñ bi sëñ bi tëtu ko ne ko xorojum ne tëddi bii li bi lan wa tuqaa wa tafwiid am li lan ali wa tadarun nga xam ne nga xam ne kon xorojum ne tëddi bii li doon ba bàyyi pexe topp pexe sëñ ba waaw kon kon day mel ne kon sëñ ba mën na laa jox wedd bi ba ba noppi doon sab say xool ci tariqa bi waaye nag du wala ci xaraka bi ni mu koy tuddee ak muy dee nga xam ne mu la jokkale ca xadra ba waaye nag du sa say murab bi mu xam ne moo lay womat moom waaw moo lay womat moo lay womat am nga daal yow am nga daal yow connexion bu wala énergie boo xam ne boo amoon ko la bu bu wax nga dem waaye nag waaye nag kooku mun la bu wax waaw waaw waaw waaw kon de daa mel ni mën naa bu dee pati pati moo beneen ok xaq am na ci li ma waxoon ci man mi daa jaayante ndax ndax dañ daa waxi baat suñ bakki bu suuf ci mi demoo laaj ñu ko suñ musaaka achair waxoon na laajoon ci ne ko ci ci mandarga mu jubbalu mu ne ko di xidmal kooka di ko liggéeyal di nangam ci liñ koy feeñale bo- bo- bokk na ca bokk na ca ak ak wa wax baat yi waaw mag ña li ma xam ci ci mag ña mooy jubal naa la sama bopp àdduna ak alaxara waaw waaye li li ma xam ci ci ci mag ñi it mooy sa sama baay ba may jëbbal suñu mbokk Madina yóbbu ma ca ci ci ci ci ca moom wax ko ko moom dama koy jëbbal suñu mbokk Madina daal di may ñaanal nga xamante ne loolu kon loolu ko la kon dama firi ak njëbbal ak njëbbal moo xam ni waa ji wax na moo xam waxut waaye sukk bi mu sukk ci ne ngir daa bëgg a jublu boo demee ci serfal ji da da ngay gis ne baati baati baati jublu naag yooye dikku ci waaye moom daa sukk woo wax ne daa daa bëgg yàlla bëgg ko ko tetal ko koo xamante ne leer leer leeru yàlla gi gi këpp ci kawam dana ko làqal nite ga nite ga ba mën a am ci moom la mu bëgg kooku nag bu bu bu ma fi dëkk lu may babel nga mu réew ma ca lu am solo la ba ci babel bi sax bu la leer yàlla gi gë gëndut boo yeexee nga jàpp ne bàmmeel du dara te fekk na kay dara ndax leeru ku ruuk ku baax kooka ma ngay sapp ca bàmmeel ba jóge jóge ca ca janwalim yu kawee kon kon loolu Seex Seex Rafal wax am mëdët ca yàlla ba man koo ba mën a bañ a gis manki manki manki teg nii teg sëñ ba salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh fataahu habu yaa rasaqu yaa makiin liftaw habli wasukun kun ana لكي أتي عاجلا به بسم الله عاجلا حيحتكم كنا أسير دعائي توبا وحمني وقني أسورا وتدبين كنا سمع ولا أدي ولا ربيع وشاكين أجيب اسم الحسن أدي محمد وأتي الباب سمع كلام رحمة الله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi siyaare ñëpp ci weer yu tedd yi nekk ak ñu jëm yëpp rek weer yàlla yëpp ñu ngi ko siyaare ñu ngi siyaare siyaare gaa yu baax yi ñu ma ne kaw suuf siyaare xam naa Moodu am na ko laaj laaj ko laajoon laaj bu am solo lool mooy mag ñi mag ñi lu tax mag ñi ba ba sëñ bi noppee ci ñoom lu tax ñoom dimu ñoom xanaa dañoo topp sëñ bi waaw loolu laaj bu am solo ñi ma dégg laaj bi am na solo lool ci ci ñëpp mooy nag ñi nga xam ne defaru nañu ñooñee lu tax dimu ñoom toog nga xamante ne day mel ne laaj bi day mel ne lu tax daal ñoom dimu ñu toog rek nga xam ne xam ne kenn du leen tudd ci murit wala wala sax dara sax nga xam ne alaaka bi dox seen seen dëgg seen bi alaaka ba jeex na ndax ne duñ ci hôpital bi ba ba ba génn kon kon tànk jëratul yoonal bi tur hôpital woon wala génn nangam lañ soxla woon ci moom rek moom mooy wér te wér na xam naa mel ne laaj bi noonu laaj xam nga sëñ Tuubaa bunt la ci buntu yàlla yi kuy wut yàlla ba nga xamante ne jaar nga ci bunt ci ci ci bunt yi bunt ba bunt ba moo la lëkkale loola ak xadra ba ma ne kon da nga naan ci buntu sàngam laa duggee ci maa ngi duggee ci buntu Cheikh Xaajiyaani wala Cheikh Ahmad Tijaan Si wala wala Cheikh Abul Xasan Saasili yi nga xam ne ci ay ci aw yoonam ci aw doxalinam ci ci ci métadul la ci laa yéegee kon yow loola moom dalay topp bi nga tarbiyee woon ak ba noppi ba noppi ci ci ba sëñ bi noppi ci yow su su boobaa kóllëre gaa fay des kóllëre ak démb ga Sëñ Tuubaa waa Gànnaar daan nañ ko siyaare mu leen di siyaare daan nañu ko daan na leen siyaare ngir ci seen yoon yooyu yàlla jaaroon ba am la mu am ñoom it danañ ko siyaare ndax mu- moo doon seen maam bu dee ñooña bañ demee ba àgg ndax dañuy daal di taqali ko ak yoon woon jaaroon yoon wala yóbbu woon nga xam ne nga xam ne day mel na ñoom daal mën nañoo beru léegi foo yoog lañ yor sama bàyyi nee na fekk na ci sëñ Mbacke Madina am góor gu ñëw nuyu ko ne ko man de dem naa àgg naa dem naa ba àgg fa ñuy fa ñuy takk jëng yee ma laaj ñu ne ma kat sos wëy na sofa bi des waaye di jublu ci sëñ Mbacke Madina kon kon kon kooku daanaan la de dem na ba àgg ca fa nga xam ne bu bu sos ama amaatoon mu mën a sos waaye sos wéy na li fi des mooy sof kon kon da ngay tànn ci ci yoon yi gu- guur yàlla yooyu bu la ci neex nga nga nga soobu jël kon ko kon moom ba tey fa nga doon naane kon ba di set mu indi suñu temps chatan ay noonu xataa ne ma ku lu una sin mashrabahum sama mashrab ba doo doo ko bàyyi mukk moom wax naa ne ba ba mandi it maru yàlla daru jeex ginnaaw yow mënoo pentaat ab mashrab bu yees kon mashrab booba moom ca ngay ne de di wéy xam naa mën naa am la muy wax mooy jëmbul laaj ba tëggiwaat ne ne mën naa mooy sëñ ba nga doon jébbalu mu jox la tur yàlla nga ne ca ba xam dara ndax moom day nekk day wéy di doon sa sëriñ waaw mooy si sëriñ ci ne ci moom nga jaare ba am la nga am waaye nag bu xasee nopp ci yow nopp na ci yow sëñ Tuubaa wax nañ ne su masaa nopp ci kenn mu ne ko nu may def mu ne ko foo xam jëm ko léegi moom lim soxla woon ci yow noppi na yow sama baay danaa dégg bu di wax ne ne moom bu toppatoon nit ba koo xa la bëggoon ci moom am na ko nee na nopp na jot day seeti keneen loolu nag mooy tax yëf yi jaatu jaatu nga xam ne tariixa sasili bi ñëwoon ci at yee rawdu waaxin doon ko teral si dafa laaj ko la laaj kenn ci ñoom laaj bu am solo yéen ndax am ngeen xalifa général mu ne ko waa ji téen ne ko mën na téeméer at yii de fàttaliku wuñ ko ci te yëf yaa ngi dox kenn ku nekk ubbi nga wën nga tiwoo mu dem sa kër waaye yi kon waruma ja waruma ja kulëre ga moo fay des waaye boo xasee noppi ca yor nañ la ba ba noppi bu demee ci tamit ma wax suñu banque yi misaale koo xam ne daa wàcc te waragut a wàcc mu ne nag nga xam ne na na naanagul ba màndi ca weeru ndeyam na moytoo lekk suuf ndax lekk suuf da dara waral dee kon ki nga xam ne dafa cëppiroom te àggagul kooku moom bu xiifee la ko doon reggal muy tur yàlla wuñ ko branche li woon kon bu bu yeexee seeti leneen te loola bu waa suuf lay doon ci moom te kon suuf dee lay jëm dee ruugaam foofu sax daa am dugal muudu laaj bu mu laajoon laajoon wax ñi nga xam koo xam ne danga ko jox tur yàlla mu wor la may la iblis di de lam doon def balam ci am lam ci amoon su boobu nanguwu ko waaye da koo dàkku ci yërmandeem foofu foofu am am lu am lu ma fàttaliku ci loola ku ko ma sa jox dara ma fonk kooka kooka mel ne dama mujj for foñ ma bu ma so sax noonu waaye foñ foñ foñ bu métti daal di dogu ci dogu ci ci yàlla mu fàttaloo ko loola booba da da dama doon seet ba xam daal sël bu sël bu ko wax sël bu ma daal ci dogu ko kooku moom ko mën a mokkal la moom mokkal goo xam ne boo doon wax boo boo boo waxtaanoon ci moom ci kanam waxtaan wu lu mu gudd gudd ba noppi mën na koo tari waaw dama dama koy ba ba bañ a leeral moom bopp. ma doog ci loola ñu toog ab diir at yu bari ma di ko laaj nangam nag joxoon naa ko mu wax mu ne ma dee mosuma ko jox ma wax wax wax mosuma ko jox ma ne alhamdulilah. kon la ma doon seet kon gis naa ko asalaamaaleykum taala barakatu salaamaaleykum ok ilhaq man ilhaq dara ca ok am na misaal moom solo ku mel ne sëñ Moustapha Sylla moom kër Moustapha noonu ñu nit nit nit taarixam sëñ bi ba mu ñëw sëñ bi sëñ bi laaj ko Moustapha ci la ne woon mu ne ko maa ngi maa ngi ca yoon wa Cheikh Buxaari Jilaani jaaroon ak Cheikh Abdul Hasan Saasali ak Cheikh Ahmad Tijaan Chérif sëñ bi ne ko Moustapha de am nga loolu sama borom may te te xamoo ko mooy ko ko dile mu dara daal ne ko Moustapha ne nekkal ci te loolu su bis penjee maa lay seere ci kanam suñu borom kon nga xam ne ne kon seere soosu kon lool loolay tax gaaya ñu xasee ñëw ci almusrabu saafi du du du fa jógee sang temps la sang sang temps la ilhaq aaxar waagay waagay koo xam ne dangaa dox ba mel ne Cheikh Abdul Hasan Saasali mi nga xam ne ci xaajur yi la lañ wax ne ci ci la génne mbiram boo demee nga xamante ne léegi moom tarixa mustaqil la am waaw waaw suñ tubaab ci ci xaajur rek Tijaan ak Saasali ci la génne doon xaraka mustaqil la am na am na am na beneen tarixa nasiriya wirdu nasiriya tarixa nasiriya ci ci ci biir saasili ci la génne doon tarixa mustaqil la waaw ko dem nag ca daya booba ci ci daya booba ku ca dem ñu nangul la ko ndax dégg nga ci xisa boobu gur googu moom la wax dana ma dem na ba àgg na fa ñuy takk jéng ya waaye ñu ne ko sos wóoyi na soo fa des waaw waaw mel na ne wax ji baatu jeex amu ca wóoyi na wóoyi na bokkut ak jeex na xam naa xam naa kon wallaahu alam. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. taxaw xëy bu yàlla yàlla saqu yam kii te bii yow ma saqal ko ne ana day kii asina waa ji lan. bil bi si ma amal ji na tax tax kanam. isur leen tuwaa wax mi ni yokk ni asa waraa wax bi suñ kanam. سبحان وآله وحبه ومشاركين لي والمسكين أجيب وسلم من حسن علي محمد ولا تهلي فيها ما يكون باع سبحان ربك رب العزة عما يصفون xam naa farlu géey day laaj laaj tënk la diwaan dafay dem ndax ndax ndax ku fa teew science bi da nga ko mën a nettali da nga ko mën a nettali jotaay ba waaw tuuti ndax Abubakar Siddiq ak xulafaay yu njëkk yooyu ndax dañu teew waaw waaye bu dee da ngay wax wax loo xam ne moom yàlla dala dala caa sarax dara tënk tënk tënk bi daal mooy moom am nañ dañuy wax ne boo demee question muy muy muy sol mel ni mbubb boo bés bu set saa saa bu ñu ñëwee benn boobu lay sol xam ne kooka ci ci waa wasaq yi la bu dee koo xam ne nag da da da fépp mbubu xam ne ci waa dund maanaam loolu ab ab xàmmeeku kaay la waaw bu bu dee secret yañ koy wax du du ne lépp lay waxoon waxuma diwaan waaye li ko suñu boom may kas fu boo xoolee nii la ngay xam ci ci moom doo ko ko wax ndax boo boo boo am na ci am na ci yooyu njurul wax ndax boo boo ko waxee am na ci yoo xam ne wax ko day yàq système bi waaw am na koo xam ne boo ko waxee boo ko ko ko waxee la la nga gis moom boo yàqee mu mu mu ñàkk yaakaar ñàkk yaakaar moom mën na daal di doon ab yàqar fa loolu loolu moom ci tasawuf moom moom si xam-xam yi ñuy xam moom am na ci yoo xam ne bu ñu bu ñu leen waxul dara ci ne bul wax ak ak waxal maanaam daa am yoo xam ne wax ko day yàq si si système mu dund gi waaw dund yi noonu suñu boobu tëral war a am stabilité. 上当了。